ni nitu yalla bu mag mu ngi ñi sétat ak domam Abdoulaye ndjay ak wa kër ga yépp hmm, hmm, hmm. wa wa ndrami escal ñu ngi leen di nuyu di leen dokkel ci seen gàmmu bi khalifa bi joxal leen diggéen siin mam Demba Bunna waaw ñu ngi woté Abdou sét nee ñepp ak ñi sétat suñu ben xarit bu nekk fi ñu di ko wax Omar Ba mhm. ak soxnam ak jarbatam Fatima Diallo ñu ngi ñi sétat mhm. Sidi Ahmed bu sawiya di papay Abdou Aziz mi mu ngi ñuy seetaan ak waa Tiwaawan yépp dëgg la Sidi Mbaye dafa wax ne wa bi ilmihi aslihi loo ca teg naalal maqaam du loolu nga wax waaye wa bi adlihi fi sirri wal ilaani ku wax lool alaaji Mansour mooy góoru yàlla boo xam ne buñ ne ñeent lu waaye amoon cër fàtte ko ñeent yooyu moom rek ko ko mos a tudd kenn du ko am ñeent ci kër alaaji Malick ak sëriñ sépp kenn rek buñ ci tuddee benn xel yëpp moom lay daj boo déggee sëriñu sëriñ si gaa yi sëriñu taalibe yi lañ alaaji Mansour sëriñu sëriñ si sëriñu mag ñi la déggoo ma de boo déggee sëriñu mag ñi ah. mooy cheikhul xaw mi alaaji Mansour soo déggee borom ñaari kaala yi kenn la mhm. benn kaala gi mooy kaala gi ci ndigg li ak gi ci bopp doomu laaj bi ci digg bi mooy ban. mooy ban mooy kaala ak shariat. bàyyam da koo tarbiyee ci sharia ba moom bu ci kaw xaqiqa laaj ma ñaareel. soo déggee sayidul qawmi kenn lay mooy kan. alaaji Moussa. boo déggee góor gi ñu uufal bàyyi ma ne ñëpp ay arrière kenn ay taxaw. <laughs> Mm. moom la de. kookoo taxaw ne naa la da ngay bàyyi wa bi ilmi da nga mm. naa la am na ku am mu ne sama baay naa la fiyalu maat la. مبني على الفتحة لا محل له من الإرهاب وفاعله دمير مستطير أبي على جماله لم أم من سعادة المقام نالا أمنا المقام درجة يبقى وينك لن موكو كمي من بعلمه تخم خم بولير سيدي مباي وخنا بركي دمو تيغا مسونا رقية مالك سنو مام من مام الله جمالي خم خم بيهمو درجة جي دوم الله لمي لمي يب لكي موم نمي فغي بدف كتير تدو سونو دو سونو موي وبي بسلي شيخ سيدي الحاجي مالك basli déggoo sama wax mam Mansour nee na wa bi ilmihi naalal maqaamu waaye wa bi baslihi naalal maqaamu wa bi adlihi maandu gi mu maandu na Cheikh Alhaji Malick naalal maqaamu waaye ñaari adlu Alhaji Malick am yëguloo ne adlu ñaar la al adlu fi sirri wal adlu fi fi fil aalaani léeg-léeg nit bu génnee ci mbooloo jub baax ba ku ko gis naw ko bu weetee caay-caay léeg-léeg nit mel noo xam ne bu wéetee wéetal boroomam. su génnee ci biti génnee mbóosóor ba nga xeeb ko fekk waaye yàlla la mu ne mbaa sama baay Alaaji Maalik bu génnee ci biti ñëpp naw ko ndax màndu waaye lu mu màndu màndu ci biir néeg bi ci biti bu duggee ci biir la gën a màndu. Cheikh Seydi El Hadji Maalik. yonent daf ne borom ñetti borom borom cër ci yàlla mooy ku man ñett ñett ba nga sa baaraam. ban mooy koo xam ne dafay góorgóorlu ba lu mu am lu mu tuuti tuuti mu néew mu néew mu doy muy benn. foo ko fekk boroom cër boroom cër la. ak kan mu ne ak koo xam ne lu mu wéet wéet keroo la gën a yàggal yàlla. ak kan mu ne ku ñemee yëkkati kàddu dëgg jox wax ko koo xam ne sa yaakaar yëpp ci moom la aju. yombul de mm, déedéet. koo xam ne sa yaakaar yëpp ci moom la aju nga man koo wax dëgg. Mm. kooku yombul. wala déet waaye nga teg ci beneen bëy boo xam ne sëriñ Hadi moo ko wax. dane hali siyuux balaa maa dellu sama teb waa in jallat maratibuhum ila talaamisu isla xam na osmaana doo ma laaj kuy sa ñaari wax naa la kuy alaaji Mansour ma la kuy sa ñaari boo gisee ma la koy wax du bàkk leen du tagg leen du teg leen ci kaw sëriñ damaa bëgg nga xam ne kii wax waxeewul bakkan yegg na ci niveau boo xam ne bu waxaa yàllaa tax dëgg la moo tax ma lay wax kii wax kan sa ñaari mooy koo xam ne sa aji Maalik moo taxoon ne man Maalik Faa Wàdd mhm. diine l'islam ji am na ci masala yoo xam ne war nañ ko réviser waat ndax jamono bañ ko doon àtte ak jamono bii du benn dëgg war naa tëjuwaat bindaat ko teg ko ba mu dëppook jamono ji ñu ne ko loolu mujjadit moo ko man te balaa koo def day am ñett ñoo xam ne dañuy nekk mekk mufti comme moom toll ci maqaama mujjadit te moo Malick amoo ko mu ne am naa kenn ñu ne ah mu ne Haadi Touré maa ko jàngal waaye yegg na ci maqaam bi xoolal ñu wër Seydi Hadji Malick Maodo xalaatul kenn ku dul Seydi Hadji ne ko ñaar ñi ci des kan la mu ne yàlla ma may na ma cër ñi nga xam ne ñaar ñi ci sama jëmm ji na ko représenté dem ba mu yàgg mu ne banaa ko ñu ne la tax mu ne su ma ko defee keneen ñëw bëgg na ma nit def naa indi dugal ca lu ca bokkul te fekk maa ko créé yàlla topp ma ci nañ ko bani bu ñu demee ci yàlla ku yàlla fay gëjë la ilaha illallah waaw man waxuma loolu waaye lu tax mu tànn sa ñaari ak ñi Maodo jàngal hmm. wala déet waaw sa moom moo wax ne alisiyu wa in jalat maratibuhum ila talamisu isla xam na ousmana si di mbaay eh, eh, Seydou waxoon naa na kam ñaar la kamu xabar ya ak kamu adad ya hmm. beneen adada nga ñaari xel moo am xalu istifham ak xalu nafi xel bii laajul xali siyux amul benn sëriñ benn benn benn benn nag wa in jarat maratibum doon ndax seen dara day dañoo màgg ila talaamisu lu taaliba la ñuy doon is xam ne Ousmane buñ dajee Seydi Hadji Malick lu rëy rëy garaat boo toogee ci kanam Maodo yëg ne ku la ëppale ñett ci kanamam nga toog bangal sa baaraam toog nga ci kanam ku la gën a ragal yàlla mhm. toog nga ci ku la ëpp xam-xam mhm. toog nga ci ku la dàq sellal toro wala den ak a sell Seydi Hadji Malick lu mu am sell ko ko may ma dem mhm. mu ne weeru koor moo tudd sahru sadaqati waaw Seydou Sidi eh, Seydou. naam yéen não, booy saraxe 1000 francs hmm. yéen nga ne dërëm bu ne fukki yiw la. dërëm bu nekk fukki yiw la fukki yiw la waaye bu dee weeru koor dërëm bu nekk junni yiw la. Hmm, waay yéen nga ne boo toggee ñam joxe pepp ceeb bu ne fukki yiw la. bu dee hmm. weeru koor pepp ceeb bu ne junni yiw la. incha allah maa la ko wax jigéen ñi di leen saraxe weeru koor. togg leen tey séddale. ku ci bëgg sa doom raw ay moroom moom deel togg weeru koor di saraxe. jigéen juy saraxe weeru koor lu jur mu baax maa ko wax sa tere googu ma jox la ko tey weeru daa sori ma jox leen ko suukaru ko moo tudd sahru taqwa weeru ragal yàlla hmm? yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquuna la yàlla wax hmm. weeru koor benn meññant laa mooy ragal yàlla boo weera ba koor gi jeex te la nga daan def nga gën koo ñeme wooroo woon dooma laaj beneen tur tudd mooy saxul ihsaani mooy weeru rafetal dooma laaj beneen tur bi mooy sahrul imaan yi dooma laaj beneen tur mooy sahrul hidayat alquran mu ne hudan linnaasi wa bayinatin min al huda maa ngi lay wax na nag melokaanu ku woor nu mu war a mel ku woor ku woor waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na juróomi jikkoo ngi day dog weeru koor Sidi Mbaye gars yi dañoo waxoon ne weeru koor naan a koy yàq naan ak lekk ak lekk ak laal jigéen déedéet jënd ak jigéen di ko laa ñu la sa koor gi yàqu na déedéet loolu rek yàqu ko am na yeneen yu يونت مون خمسه يفطرن الصيام جيروما غي داي داك كور بانك الكذب واخلو دول والغيبه اك والنميمه اك رمباج واليمين بالكذب فنت لو والنظر بالشهوه اك توك بام فيترين بن خالي بو جيغان رومولا نانا سيت تيت تيت مي خالي دك دوك نغا لا كور جي ياكو ياكو نا علي مالا كو واخ ماي واخ Ah, xamsatun yaftar yuftir na si saahimu boo ma weetee demal ci téere bu ñu tuddee xuniyatul jaylaani téere la boo xam ne Seydi Hadji Malick jël na ci maqaam sëñ mën sa borom daare hmm. ku yàlla baaxal alal dina nga biru de maa la ko wax ma ne xamsatun yuftirna saim yonent bi nee na juróom day yàqu koor alkasi bu wax lu dul dëgg wal xiibatu ak jëw wan namimatu ak rambaaj wal yaminu bil kasi bi di fen ci lu dul dëgg di gën ci lu dul dëgg wan nadaru bi shahwati di xool jigéen ju la lewul fi nga toog xale bu jigéen romb la te yaa ngi ci weeru koor nga ne seet tët tët mais xale bi mool naa <laughs> mais kii robbam bi macha allah dog nga koor gi yàqu na danga koy fay maa la ko wax mane ne bii ma la wax lu ma créé maa ngi ko jëlee ci téere bu ñuy wax laa jaylaani boo demee nga yor ko ma nga ca ñaari xaaj la xaaj bu njëkk ba ca paas 4 5 boo fa demee daa ko ca fekk aw ma lu may créé judduwuma xaw ma jàngu bay wax lu ma léegi boo gisee xale bu jigéen ci Facebook bi rek ca la gën a bone foofu la gën a bone kon ba leen réseaux sociaux yi bi kon ku woor dafa war a am nu mel ma ne sëriñ mën soo borom daari da daan siyaar si maamam ay 3 heures de matin si rajo ma toog ci buntu jàkk ji yor benn téere bu ñu xun watul Jaylaani mu ne cëpp rek ma gis ko la song bi ma ko nuyoor mu ne ban téere nga yor ma ne ko xun yetul Jaylaani mu ne fii xun yetul Jaylaani maa maanaahu ma tiit xaw ma lu ma koy wax ndax dara jajee kay bëgg mu ne fii xun yetul Jaylaani maa maanaahu xaw ma lu ma wax mu ne muwaafiqan li ma rawal awaahu in qafafa al imaamu itminaana adaali muqtadin bihel butlaana maa leen mag maa leen gën a màgget waaye maa leen raw ba léegi kenn du borom xam ne xayda xayaati laa lu dul téere du ko wax lu dul téere laa yaqulu ila nas nas nas téere rek lu téere bindul borom daara ji du ci wax du détaillé micro borom saawaay ji loo teg fii jatwaa فكر فيك الهوى ورم سواجي لوتك ورم دارتك ورم دارتك ورم سبي يكنو دايفي جرم جبورو ورم سواجي لوتك في جرم ورم دارتك مصبك في جرم مولاك نلقى المنصور قد نلت ما لم يأوي أحد لي زوريكم جدكم نستعي مشكور برم دار جيلة في جدواك أجهرا سواء جيراتك في الأدوار وأقرب دار جيراتك في جدوار سواء جيراتك في جدوار أنا نلقى كافاك عزا وفخرا عالية رتب ما خصكم ربنا من دون ما طلب برم درجة بيت في قلبي جرام هاجي بورو سوا جيلو دك في جرام برم درجة برم درجة سقفي كفي شرم ورم خاص صلى وسلم دولة جخي جدوى ورم دارجي ورم خم خمسي يأكل ضيفي جدوى شيخو سلام دولة جخفيه جدوى ورم دارجي في جدوى ورم دارجي abdou la ko jox yéewa ana nan kon Mansour santal yàlla cant bu jépp xam looloy li jaadu defal fi duuni tawaane borom daara je déetu fi kat yi jàppa aji borom Mansour abdou la ko jox fi jàppa wurgi xilaafa mawdo ab doola ko jox fi jadwa ramadaan in ramta alxaqiqata shaayidan seydi لكم بنشر الذكر والقرآن والله رمضان رمضان إن رمت الحقيقة شاهد لكم بنشر الذكر والقرآن رمضان إن رمت الحقيقة شاهدا لكم بنشر الذكر والقرآن مام عبد نينا كي ماي بغا ترانسميتر سر الخلافة التجانية دي سيرن منصور برام دارجي بوكاي لاج لاج ماكو ماكو خم ramadan du mu ne damaa yàkkamte ramadan in rumta bu fekkee da ngay laaj kan mooy sëriñ Mansour ramadaanu laaj ko in rumta booy laaj xaqiqatan dëgg-dëgg sëriñ Mansour al weeru koor moom shahidun moom seede la ci ne ki may jox xilaafa gi mérito na ko oh. laaj ko weeru koor lakum bi nasri dikri wal qurani lakum aji nekk la di ñeel la yow sëriñ Mansour bi nasri zikri ci toj mboolem xeetu téere yi wal qurani te mbir moom nga koy jëlee ci alquran noonu ngay firee شهد الكرام لكم بأن زمانكم شهد سيدنا الكرام وي تدي بأن زمانكم نكا سين جامونا يين يو سيرج منصور يا منصور يو برام داري ما في يا منصور من شناني ما فيه دد نك تي خلافه يا منصور يو برام داري من شناني تي مباñante ku don bañante bu borom daara ji ñe ñepp bëggante jërëjëf ma wax la ma wax la ci borom daara ji ñett ngi lay wax ci borom daara ji ñett yoo xam ne ku sant si amoo ko moom rek ko ko am ñett. ban ak ban ak ban. xamuloo kër si Aji ku nekk jagle. moom rek moo cinquante cinq ans juróom fukki at ak juróom gàmmu ko jot moo koy firi mooy woy burdu soixante si mosoo koo def cinquante cinq cinquante cinq nee ma benn benn moom rek moo am cëru bu xëyee lal dal su ci kër seexul xaw mi turandoom alaaji Mansour booba maam aadama kan ma nga fa ak mag mi jàngale ba dërsu bu jeex mu waaxu dugg kër baayam lal dërsu joxe fii leçon joxe fee leçon moom rek ko ko def nee ma ñaar moom rek mooy ku sant si ku am fitu di joxe wirdu tijaan te bindaluñ la ijaasa diiru juróom-ñaari at ku sant si defu dof day wax ak yow. borom daara ji rek ko koy def. dooma laaj fu mu ko jëlee. fu mu ko jëlee tey jël wirdu ci sëriñ Mën sëriñ Babacar si mu yéeg kaw ta escalier bi sëriñ Mën sa ne ko papa papa mu ne ah mu ne ko kii dafa jóge àll ñëw di ñaan wirdu mu ne ko jóg naa ba pare jox ko wirdu mu ne papa aw ma ijaasa mu ne am nga sama ndigal sama ndigal a gën a dëgër kayit gu ñuy bind. maa la wax lii. kuy seet sëñ Babacar gisoo ko mu jox la wér ba sëñ Babacar xëy wóolu al sëñ Abdou al amin bin loo ko ñetti ijaasa ne ko bii yow bii Serigne Cheikh bii Serigne Mansour mu dog a recevoir bosam na xanaa ma téye ko ngir xel mu daal waaye Mansour commencé naa joxe juróom-ñaari maa ngi jéggi borom daara ji dem ci sama gàmm dama koy bañ a guddal wala de maa ngi wax ci melokaanu ku woor nu mu war a mel bokk na ci melokaanu ku woor noppi ci lu dul tudd yàlla ak noppi ci lu dul jàng alxuraan lu dul ñett yi boo wooree da yàqu ko na bi ne alsimu assukuuta wasxiloo bi zicrillahi wa wa tilawati alqurani fi seen ramadan mu ne weer koor ñaar leen ca sant jàng alquran ak tu ñaar la dafa am shahrul aam am shahrul xaas am shahru xaasul xaas bii mooy shahrul xaas mooy nitu yàlla seen keetu woor am na mag mu mosul woor si fii Tiwaawan sen Dakar koor ga jeex mu ñibi ne da koy fay ñu ne amoon dafa sedd Dakar woru dañuy noos sedd guyi ñu duggal la ci néeg am lu lay upp ñooñ dañuy fo koor bala neex mu waw ba sey tuñ waw ba bala dogo jot ngay xama a ko man gogu koor la am koku de du ne koor gi tàng asawmu bi sayfi bi sayfi bokku na ci melokaanu ku koor nu wara mel abam as xaysu lisani nabine man lam yada qawla zuri wal amala bi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه كم أنت وخ باي وخو تياخان منو باي سيتان فيلم منو باي دم تيريبا منو باي دي جونجو جيجين ني أنيا ريرال نديكيل سا كور جي بغو ما يال داغي خيفر مو بوكو سي بنين بيو خامني كو كور دا تي ورا باي خيل كف السمعي القانون سماعون للكذب اكالون للسو سيتان waaw ñi nga xam ne dañuy woor di déglu caaxaan seen koor baaxul yëguloo ne musique dafa araam waaye li muy araam araam ko ci bëccëgu weeru koor la gën a garaam nabi nee na al wal mustamiu sharikaani fil ismi kii jëw ak ki toog di déglu jëw ñoo bokk bàkkaar bokk na ci ku woor nu war a mel kaful bat hani sabahaati boo wooree ba ngoon nga dogee lu lew mbaa yëg ne boo wooree ba ngoon te li nga dogee lewul koor gi baaxul nabi nee na al araamu summun muhlikun li diini yonent moo ko wax mu ne lépp lu araam tooke la ci ab jullit dafay alak diine maam alaaji maal ne bi azami zamani wal makaani taazimu taatin maal isiyaani bokk na ci li nga xam ne dafay salteel koor nabi nee na ku woor moytu ko tey waaye siidi tey la ñuy dee ku dee an laa yuksiru ab taama waxtal iftaari dog jot nga lekk lu lekk ñetti xeetu ñam yu bokkul dañ koy tere ci weeru koor Pape Abdou de loolu lay def moom lekk mburu ak ton ay waay saucisson ay waay fromage gruyère naan ci fonde bi xariira ah. dank ci ceeb bi ah. te naan ginaar yi pareegul wóoroo <laughs> ah. téere laa lay wax de man mën de lu ma la wax man laa téere fay kon bëri na kon boo wooree ba ngoon daal da ñam rek déedéet doo ñam dafa bokk ci liy waral wéré di idd xaaluka taami fi taami ñaari xeetu ñam yu bokkul ci benn guddi nga lekkandoo ko feebar ba jëy juddoo dootul wér moo ken werul bisab nga ne dur njar nga ne dur boisson nga ne dur jinjar nga ne dur bawo dara te naan beñe bi ba faté wala fataaya ba ay suñu du tey ji gi gii café de xawma ku ko pa xappa way ci bu jëna nga palaasam waa ku ko togg yow da ngay xar wori <laughs> beñe do ba lu ne man gars bu ñoree dog jot damay tiit salu lëmm nga lal ko lu ne nga ne ma ñam da ngay xaw tiré la lay wax de taraan bi oyof bi oyof na waaw seet seet seet yu oyof yëpp ko ko bolé bu diis de ah jar xel ak ban ya ba déedéet wa an yakuna qalbahu mutaalliqun bi xawfi wa rajaa boo wooree te balaa dogo jot yëgoo boole woo sa bopp ci ne ñoom duñu fanaan wooroo maanaam maanaam da jàpp ne yow balaa ngooroon jot nga dee waaye da ngay jàpp ni téeméeri at di nga ko fi def al abdu bayna al xawfi wa rajaa tiir nax wa maalik moolaaj maa leen naawal jëm ci sa borom ni ñuy naawee mun a ñaari laaf laaf yi yaakaar yàlla laaf yi ak ragal yàlla da ngay dee na sa dara baaxul te dee na loo def baax na dee na suba ngay dee dee na di nga fi def junni at waaye boo toogee ci digg bi foog na sa lépp jag na yàqule nga falaa ya'munu makrullaahi illal qawmul xaasiruun te kat kaay ma wax la li tax weeru koor doxaan ci bon ah, doxaan jëw ci bon fen ci jëw xam nga lu tax garaaw hmm. bi azami zamani wal makaani taazimu taatin maal isyaani mbaa yëg nga ne ku njaalo te amuloo soxna ci sariya la la cay génnee mooy ñu jaw ñu caw la téeméeri yàlla azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin waaye su fekkee ci bëccëgu weeru koor nga def dañ laa war a dóor ñaari junni yar bu dee bëccëgu la ko bu ci bëccëg ci weeru koor nga ko def yëguloo na tama dafa gara baaxul. tama dëgg tama di ko fecc waaye li muy bon bon tëgg ko ci jàkkaa gën a gara. Mhm. bi azami zamani wal makaani. dëgg la dëgg la waaye yëguloo na jàng alxuraan dafa baax. waaye li muy baax baax jàng ko ci jàkka jël ci la ëppee yoon. moment dafay compter ak heure ak jamono ak waxtu. contexte effectivement. contexte dafay dafay dafay joué ci nit ki li muy def. bi azami zamani ci màggug jamono wal makaani ak màggug place bi. taasimu taatin loo jaamu yàlla noonu la garaat bay toll wala isyaani loo mooy noon la garaat bay noonu lay noonu lay garaat moo tax muy weer woo xam ne sahrul iffati la tudd loo doon fegu ak loo doon moytu boo demee ci weeru koor gën ko bàyyi xel wa sahrul waraa i loo sàmm woon yokku ko parce que virgule bu tuuti yàlla da koy comptabiliser waay waay xanaa kuy yónni wante ay photo ko message ak ba weeru koor jot nga war a aj nag xanaa <laughs> xanaa nga war a arrêté nag may ñu jàmm yàlla vraiment. mais gars yi dañuy burle fo bi. déet waay maa la ko. weeru koor day jot ñu mel ni ñu wóoru. te nag in tajtaniboo kabaa'ira maa tanhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum yàlla nee na. bàkkaar yi ma leen sant bu ngeen ko bàyyee yu mag yépp ma baal leen bàkkaar yu ndaw yi te bàkkaar yu ndaw yi nag jaxasoo xale jigéen da cee bokk. maa ngi bëgg a ci deuxième point bi mooy gàmmu gi waaw léegi nag dañuy gàmm